président baa siin waaw moom tam waaw bisimilah kon mboolem tuut tànk yi nga xam ne ñoo ñëw sëriñ bi day wax ñu barkeelu ci dalandoo baa siin miim ألف ألف لام لام لام لام هو اسكي اسكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله nii la ko nii la ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu defale woon Cheikh Makhtar Binta Lo ci àll wi ji ñu tiim tey nu barkeeloo ko ci boobaag léegi téeméeri at yi topp na jërëjëf waaw waaw bisimilah. kon ñu dañ leen jox